ومن wala بإحسان إلى يوم الدين هذا السلام عليكم Jemaat rahma وبركاته dikat الرحمة ñangi dikkat suñu bind ñuy bind dimas batay inshallah bind bobu ñongi batay ci bismillahir rahmanir rahim yitti bi nga xamne l'islam jox nako ko programme bi nga xamne ci jullit bi dundam te nag nooñ commencé qad shuriat fil umur kathira maanaam lislaam yoonal na bismillahi rahmaani rahim wala bismillahi ci mbir yu bare charu moo di bi maana amru bi maana sunna aw sannahu wa bayna وبين طريقته يونال نانيكو leeral nañ nag nañ koy defee bismillahi wala bismillahi rahmaani rahim ci shariatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kullu amrin zi baal laa yubda'u bi bismillahi wala bi bismillahi rahmaani rahim fu abtar aw ajzam aw aqta saa salam dafa bëgg wax ni bépp mbir bu am fayda tàmbale wuñu ko ci bismillahi fu abtar mooy day dagg aw ajsam moom itam façon dagg lay niru aw aqta wala mu dagg dagg luñ ci nam ma naaqisun du mat wa qiila naaqisu barke bi mooy manqué foo intama xissan lay timmu maanan doonte mat na ci zahir nga yëg ko waaye maanaa bi day manqué ndax bisimillahi gu ñu yoonaloon waxu ko day jeexital ci liggéey boobu nga xam ni chéré la ko doon liggéeyloo kullu amri zi bépp mbir mu am fayda waaye nag maamaana zi baalin lan mooy mbir mu am fayda mu ni saahibu xaal bi xaysu yuhtamu bihi charan mu am mbir moo xam ni mu am fulla bi chari yi tiliku nit dañ koy def kooku mooy zibaal fardan aw sunna aw jawaaz aw aada mbir moom nag léeg-léeg mu nekk farata léeg-léeg mu nekk sunna léeg-léeg ma sax mu dagan lu dagan noonu rek wala aada lan mooy farata farata mooy mbir moo xam ne suñu borom sant na la ko nee doo ko bàyyi te du see yoonal tur yàlla boobu sunna mooy mbir moo xam ni lislaam neen def ko waaye boo ko defulee du jote yow dara boo ko defee na am tuyaaba kooko yoonal nañ ci bismillah jawaazan lu dagan lu dagan maanaam luñ duñ ko tuddee mu baax loo xam ni lislaam dala tànnaloo bu neexee def bu neexee bàyyi kooku léeg-léeg muy mbir yoo xam ne duñ ci yoonal bismillah aw aada aadal mooy loo xam ni ki daf ko baaxoo di def dafa ànd ak dundam comme nit ki soxla boppam dugg wanag kooku aada la fokk nit ki def ko foofu dañ fa yoonal bismillah waaye nag ko loolu boo koy def bismillah ji yëpp ci palaas bu laab kenn du ko yàlla ci palaas bu am sobe wala yustamal bismillah fi amakin yi dafa sell kenn du ko wax ci béréb yoo xam ni dafa am sobe comme douche nit ki buy dugg wanag du dem ba ci biir wanaw di ko def dedet ak place bepp xam dafa am sobe sobe nak xisiw aw manawi bi comme place bu ñu dëpp mbalit ndax mbalit yi léeg sobe nek ci léeg même bu amul sobe dafa salté fofu kenn du fa waxtul yalla tabaraku taala kon bismillah ngi nonu yonal nañ ko ci lab tahara bi mana nit ki buy lab day tuddu tur yalla laab nag dafa yaatu bokk na ci laabu xabas ak laabu xadas yëpp xadas mooy toj ko bëgg a jàpp commencé jàpp yi day kooku moo di xadas bu ndaw wala xos loolu mu bëgg sangu ca ngaayel janaaba wala ca ngaayel jigéen ngantam jeex mo xam te ngay li farata wala sunna comme bëgg sangu bisu aljuma dem juma wala bëgg sangu rek yaramam tilim bëgg wax bismillah bi sangu e kooku mooy toj mu mag wateyam bu tim bismillah tim itam ñaare fekke ni ta japp wala mënta sangu ci illa yëpp tax mënul jàpp te tiim bu boobaa nag yoon nañu wax bismillah bi tiim wal xabas buy dindi sobe yére yi dafa am sobe mu koy fóot pour mu mën ci julli bëgg nañu bismillah buy lekk buy naan yëpp bismillah waaye nak na lek lu dagan wala mo nan lo xani ni daga nan naan dañ ci wax ci kanam ruku bi daba bu war daba daba dafa yatu bu dug auto di dem mo bismillah mo xam auto la wata ben nga xam ni fay pour dug wala am ndigal dug ci di dem wala mu war fas war mbam yëpp daaba lu muy war di dem dugg bateau dugg gaal dugg avion yooyu yëpp yoolu nañu ma bismillah buy dugg wa sawdul xatib min baram kii xutba buy yéeg min di xutba kuy conférence di toog ci fu muy conférence kuy jàngale chaise bu muy toog talibi élève elef muy toog daara ji du toog bismillah ya wala si siyaab sel sor yére ak sumiko yépp yoolal nañu bismillah waaye ne nekk yére yu mu moom wala yére yéñu ko solo wa xalqil baabi buy tëj bunt wala di ko bismillah wa it fayil misbaax buy fay lamp wala di ko taal Ya bismillah yéen ya, fek mu am ci ndigal nak wa duxuli mansil bu dugg kërëm bismillah bu génn bismillah aw makani amal place bi muy liggéeyee bu dugg bismillah wa masjidi bismillah yep nak ci bari ab ah, bismillah gi amna yenen ñaan yu mu andal waye bo xé bismillah rek même bu loolu wala mu fàtte ko bisimilah gi yóbbu na lépp buy dugg jàkk walla muy génn jàkk yépp bisimilah buy rendi bisimilah buy loj bisimilah rendi ak loj duñu xaw wuute tuuti rendi mooy nii def gàtt xar walla bëy wala ginaar wala nag sax ñu booy rendi kooku mooy rendi bu dee gileem mooy loj ndax fu ñu def paaka bi moo wutee loolu moo tax ñii di loj ñii tuddi rendi waaye yëpp yoonal nuñ ci bismillah waaye nag yoonal bismillah ci rendi yoonu farata la nu ñu waxoon farata yàlla dafa digle ñu bu ba booy rendi nga wax bismillahi nee na wax googu farata la wala ngay rëbb di yebal xaj bi nga xam ni moom nga yebal ci rab wa wala xoob xoob maanaam picc yooyu ñuy bi wala leneen looy bi gaynde ngay bi wala segg nga tàggat di ko rëbbe boo ko yebal dangay wax bismillah loolu moo tax alquran nena na fa kuloo mimma dukira smulla alayhi lekk leen la ngeen tudd turu yàlla ci mom fi nak liñ ci jublu mana rendiga wala rëbb bo yebal xaj bi nga yebal li ngay wala yow ngay rendi nga wax bismillah mana fi suñu borom day ay med ngeen lek la ngeen turu in kuntum su ngeen nekké bi ayatihi ci ay suñu borom ci alquran muminin dooy gëm ba ngeen gëmee alquran di leen lekk la ngeen rendi bu leen lekk médd surtout anaam kooku moo di ijaab si ale bi wax na la lekk leen bi fii amr yàlla digle na ko wala teekulu mimma lam yuzkar ismullah alay bu leen lekk lañuy tuddul tur yàlla ñaari yoon la fi suñu borom jaar jaar na fi ale ak retour lekk leen te ñu tudd tur bu leen lekk la tuddul tur bu leen lekk medd ndax medd bu muy dee kenn tudd fa tur yàlla ndax seytaan yi wala lekk lii ne suñu borom nee na fisq innahu la fisqun lekk medd génn topp la wenn shayaatiina la yuuxuuna ila awliyaihim seytaan yi nag ngi wax ñi nga xam ne yéefir lañ waaw yéen ñu di leen taswiis yéen la yàlla reyal boppam ngeen du leen ko lekk yéen la ngeen ren ngeen bëgg ko lekk yooyu yëpp waxi seytaan la dëgg la medd yàlla moo ko rey waaye aay na leen ko yéen ba ngeen bëggee lekk yàpp te foofu leen ngeen tëral ni ñu ko rendee ngeen wax ren di bu leen déglu ñooñu ñooñu ba ngeen leen toppee da ngeen daal di nekk yéefar comme ñoom di lekk medd kon ma noonu doon rendi lu rëy la dañ ci wax yaatal yoonal nañ ci bismillahi yoonal goo xam ne ci yoonu farata la fekkee ni man nga ko wax waxoo ko da am jafe-jafe waaw wax ko wax farata la ci booy rendi ak booy loj ak booy yénni cër bi nga moo lay rëbbal bismillahi gi nag ci rend gi do ci boole rahman rahim dede ndax rahman rahim lu muy dox mo yërmande te yow da ngay bugal kon boy rendi bismillah nga yam bu la neexee man nga ci wax allahu akbar ko mena wañul dara waye rahman rahim gi mom lu lay ayé dok ci def ndax ci yërmande ak mbugal nee na mën ñu ànd déedéet walakin la yudifu ila ismillahi taala isma gayrihi la yudifu ila ismillahi taala ismi ismu gayrihi bismillahi gi ngay wax doo ci tudd turu keneen ku dul yàlla kooku ban mbindeefoon lu man doon doo ko wax turam ba ngay leen doon bismillahi daal di tudd jibril wala nga tudd muhammad salaa sallam wala beneen nit goo xam ni pour yow dafa rëcc yow ci wàllu diini booba shirk lay doon day xaraam doo man lekk loolu yéen daf koy aay mu ngi noonu kon doo tudd tur woo xam ni dafa yenu lu rëcc yow moo xam jamaat la wala xaywaan la wala lu mën doon nitu diine la wala du nitu diine tur bu mën doon wudu yàlla booy di doo ko tudd ndax suñu borom aay na lekk lu ñu tudd tur wudu tur nga kooku dafa xaraam ñu bu baax ren rendi dafa am yoon te xam nañ koy defee ba jullit bi man koo lekk moo tax ay na ko ñu lekk loo xam ne tudd nañu mimma uhilla li ghayri ismillahi bi booy rendi tuddatul keneen kooku yitteelu suñu borom ak kan la doo ko lekk bu ma subiha ala nusub lépp loo xam dañu ko rendi ngir xërëm doo ko lekk yëpp dafa xaraam ci shariatu muhammad sallallahu alayhi wa mu noonu kon rendangoom lu rëy la ci suñ dund ci lu ñu rendi lislaam dafa bëgg nga rende ko ni ko ni ñu ko santaane la yukkal kenn du lekk lépp loo xam ni ba nga ko rendi turu yàlla tuddoo turu yàlla tudd nga turu keneen boo tuddee turu keneen doo ko lekk turu ngay tudd bismillahi gaa nga noonu lu rëy la suñu dund gis nga fii ci lekk yàpp bu ñu yoonal rendi boo xul bismillah doo ko lekk lépp lu ñu rendil xërëm doonte wax nga ci bismillah sirk la léeg-léeg da ñoo xam ni jinne ñoo leen dicté demal nga rendi ci wetu géej gi ganaar gu xonq masalan wala gu ñuul wàllu mu zabtu dafa am lu ci ibaada daf ci dugg comme tabaski yàlla moo ñu rendloo comme hadiya ci kuy aj ngénte <coughs> gàttu ngént gàttu ibaada la nga bëgg lekk nga rendi santaan ak suñu borom la waaye bu la nit dicté nga rendil xërëm nga rendil keneen ku dul yàlla yooyu même boo demaa nga wax sax bismillah yitteelul waaye comme que ne dégg du yàlla yi lislaam mayu la nga lekk ko mu noonu bismillahi rahma nag léeg-léeg nit ki juum juum tudd ko kooku am na atte wa in tarakahu yukkal su fekkee dafa fàtte wax bisimilah yi neen dana lekk loolu muy ren ndax lislaam dindi na fàtte ci suñu mbir jéggal nañ ko waaw leen al qalam rufia an innaasi xata yatadakkara comme kama qaala sallallahu alayhi wa sallam neen yàlla yëkkati na xalima gi ci ku fàtte ba bu muy fàttaliku comme bu mu ren di dafa fàtte wax bisimilah du lor neen da ko lekk su commencé nag bay rendi ba ci biir rendi bi mu fàttaliku day wax bisimilah amabaw ma yetti di continuer rendika daane bismillahi li wéy ak li ñëw boobaan amul problème day lekk loolu mu rendi problème bi mooy mu bàyyi bismillahi ga am dan neen la tuukal asabiha loolu mu rendi kenn du lekk loolu mu rendi kenn du lekk ndax moo tey bay bismillahi bu muy ree moo ko tey jullit la nee na kii ni waxuma bismillah nee na kon teg tegul mbiram ci yoon kenn du lekk la bëgg wax mën na ko lekk bariwul ci loolu moo tax nit ki war na bàyyi xelam bu baax fii ci wàllu rendi ak wàllu lekk yàpp mu fooglu gàtt bu moom mooy rendi bopp mu xool mu koy rendee fu mu ko jege mu xol fofu ren gi mën a wala mënta nekk jullite ko rek wala jullite ko ren wala jullu ren wala nu mën demee loolu fokk mbay ci xel de xol bu baax su borom daganal nu nu lek rendi ahl kitab. ahl kitab, yahud wala nasran la bu jàpp seen téere mutamassikiina bi dinihim sen dini ñu app yor sen ñu yor dini waxul nit ko xamne rek nekkul ci benn diine déedéet kooku doon lekk rendem kii neen yowut laay mi ngi wéy ci seen tiir yi donte seen am na jafe-jafe kii nasaraan la si seen tiir lu ñu dunde si seen diine ñooy seen borom nee na mënoon lekk seen rende waaw wa taamukum xillun lahum wa taamuhum xillun lakum suñu borom moo ko yaxal lu nam ma ci ñam fi seen ñam dagan na ci yeen yeen itam seen ñam dagan na si alkitab luñ mu ma ci ñam fi moy rendi man nga lek seen rendi ñoo man nañu lek seen rendi julli ñi man ngeen tak seen jigen yey gor yéen julli ñi ngeen takk jigéen alkitab yey gor way ñoo man ñu tak seen jigen fofu itam am na fi tuti mbir rendi gogou nak bul ne ahlu kitab rendi rek man nga lek dañ ko teunk itam comme julité nu muy rendee am charte yuy rendé charte yoy l'islam tel bu mo rendi mo wax bismillah tuddu fa turu kenen comme ahlu kitab la mi rendi tudde Musa wala mu tudd Isa comme yow ngay rendi tudd Muhammad Rasulullah ben la do lek rendi ka yépp la yàlla aaye sa nitu diini lu mu rëy ci yow booy rendi doo ko tudde ci rendi ka yàlla kese ngay tudd te itam loolu ñu rendi ñoom itam ñu wax bismillah bu ñu ko waxul doo ko lekk rendi gu noonu kii rendi du yëkkati li muy rendi paaka ba njëkkal rendi gi mat foofu lislaam daf ko xool bu baax ndax l'islam daf bugul, bugul, li ngay rendi ci ba rendi nga gaaw ñëwal paaka ba gaaw mu jeex ne comme nag nabi saa sala wax ku rendi rafetal rendi ga na daas paaka ba na gaaw rendi di fo wala dag mu neex la nga dindi mu neex la nga delo ca kooku l'islam dalay pini ni lool nga rendi medd la dok lek fekke ni mu yëkkati paaka bi wala mo rendi ci tay delawat ko kon islam day gis ni lolou murendi mu rendi bi kamil hulqum put yep jeex wal wa dajey ni ak ñaari sidid yi sekk put daf koy dindi daf koy dag su fekke nak gatt bi dekk ëpp doley wal li mo rendi di kër kër mom ba jog muy kër kër di kër kër kër kër yi ba tegaat ko donte park bi mu ba tegaat ko normal ba day continuer rende te dañ koy lekk ndax loolu mu def du coobareem li moo rendi moo këpp doole ndax amul ko ko jàppale ba yëpp fekk ci boobu dañ koy rendi moom noonu ci ahlu kitaab boobu ñuy lekk seen rendi na rendi loo xam ne moom si gis seen gis-gis dagan na si ñoom seen sharia bu dëppoog lu dagan noonu su suñu sharia waaye su fekkee masalan renndo maam ko daganoo sunu walla mu rendi loo xam ne ñoom gis nañ nii daganul ci ñoom doonte dagan na ci ñun lislaam daf ko seet ci rendi ahli kitaab bala ñu lekk seen rendi kon rendi noonu nit ki day bàyyi xel bu baax ci rendi balay lekk lu xaraam ci wàll googu surtout ginaar rende ko dafa jafe ci ñu bare bare bare léegi luñ ci bay xel ñee rendi lu ëpp ci ñoom jànguñu ñeent la ñoom nañ fexe bayee te xale bopp bi ak ginaar gi rek jox la ñu bare bare bare bare di liggéey ci foolaay xelañ wu ñu nu ñu war a déggee loolu itam suñu mbir mu rëy la ci tun ci wàllu suñu lekk yàpp commencé ginaar xar bëy gilim ak nag ak lépp lañuy rendi dafa laaj yeewu laaj xam nañu koy defe gilim niñ koy loje nga xam nag ci wàllu rendi moom même daga na rendi daga na loj moom ci biir moom dafa ci nag dafa ci nafeq mën nga ko rendi comme na nga rendi gàtt mën nga ko loj comme ni ñoo léegi giléem waaye nag jullit bi foog mu xam lan mooy rendi lan mooy loj rendi fi baat bi commencé ci bopp bi foofu lu ñuy teg paaka loolooy rendi loj fi baat bi yem ci jëm ci booru dënn bi foofu la ñuy jëm paaka rendi loj dañu koy jam comme yo sëngal paaka boo xam ne dafa ñaari côté bisimilah nga wax nga jëm ko foofu xëcc jëm ndajoor xëcc jëm càmmooy boo ko defee rek noonu lañuy def giléem wala nag mën nañ ko def noonu waaye nag nee na xar boo ko lojee doo ko lekk boo ko rendee fi nga xam ni fi la baat bi yem jëm ci dënn bi am ñu ay loolu gëléem boo ko rendee doo ko lekk yëpp waxin la ci ñi nga xam dañoo jàngale rendi nag nag incha allah nee na mën nga ko rendi mën nga ko loj yëpp danga koy lekk waaye na doon na tegu ci yoon rendi boo xam ne noonu la ko lislaam santaane ki rendi day nekk góor baax na nekk julit mën na nekk ahlu waaye na xam ne na ne mooy bu nekk ci âge yoo xam ne dafa tuuti ba amagul tamyiz tamyiz ci lislaam yunt bi nee na nit ki lu mu nii nii mu am juróom-ñaari at ko ndax am tuuti xam ne xale bu dëgër la majeur gul waaye xam ne na lislaam mën naa rendi kiirande nag nee na mooy koo xani ni si wàllu diine nun julliñ mënuñ jël seen jigéen def ko soxna kon mu julli na walla mu muy ahlu kitaab yow la nasaraan bu góor wala bu jigéen rendi gu dëppoo nii ci chariati muhammadi salaa sallam nee na mën ko lekk bismillahi tabaraka wa wala dégg noonu amal majus wa gayruhu min al wa wal kuffar lan naakul zabixatahum lu mu bëgg wax ki xam ni majus la mooy kuy jaamu sawara wala mu jaamu doj lu mu mën doon ak min al wasaniyin ñëpp ñoo xam ni duñu jaamu xërëm wal kuffar ak ñu weddi seen boroom ñii la wax ni lan naakul nun duñ lekk jullit sebi sabixatahum seen rendi lu ñu rendi lu ñu loj lu ñu rëbb duñu ko lekk doonte rend nañu bahimatul anaam am nga xaritu majus wala mbokku majus nga dem defante ñoom amante ñoom relation bu duggante ñoom mu rendi xar yow jullit nga doo lekk sa yàpp woowu doonte tudd na turu yàlla moo koy rendi jëmmim comme que moom wasani la day jaam ko du yàlla loolu moo tax yow doo lekk lu muy rendi tur woo mu wax ci turu yàlla di rendi gëmu ko ndax mi ngay jaamu keneen ko du yàlla tabaraka wa waaye bu tuubee nag nekk jullit amul problème jullit moo rendi jullit moo wax bismillahi boobu da nga koy lekk bismillaahi ngoom farata la ci rendi danga koy wax boo ko bàyyi am jafe-jafe lekk loolu fekk yaa ko tey loolu nga xam ne moom nga doon rendi bismillaahi ngoom ak doom aadama ci dundam lépp kazaalika fii tax miidil muxtadar jullit lépp buy dund bismillah bu demee nag ba nga xamee ni day bëgg day nekk jarak nga commencé di ko doggali foofa danga bismillah ngay xamaas di delloo bët ya di fomp gimiñ ko bismillah nga xam ne kii mu ngi ci beneen mbir bismillah wa hafri qabrihi bu faatoo boy gas bàmmee la nak bismillah bokoy sang bismillah gis nga julle ngi tam tur yalla wi si yoonal ko julle walah bismi tur yalla ak yim ñaan yi andal wala hadi def ci bismillah kon bismillah yang nonu moo rew nit moo ko suul doñ boobu ñu tuddee jigéen buy rew li itam buy rew li kon jullit ci bismillah la juddo si la faatoo kon yonte bi noonu nee bépp mbir mu am fulla yoonal nañ ci wax bismillah mbir mu am fulla nag moo xam wax la comme jàng alquran وخلا ولا جفلة كم بنت مبير ما أم فول فرات لا مبير ما أم فول السنة لا مبير ما أم فول تفدان يب يول ننتي بسم الله كون تي مفهومو مبير ما أم فول داي جيني مبير ما أم الفول mbir mu amul fulla imma ñu sipku imma haram fofu lay wax ni yoonu lañu fa bismillah waaye nag lan mooy mbir mu amul fulla ñu sipku mbir moo xam ne amul fulla kenn dox bismillah mu ni ka lëb si naali gis nga sol dàll nee na bokkul ak sol mbubb dafa mbir mi dafa yàggul gooy yàgg يا نرجع بسم الله وخمزتي اك فدو نك بوي فدو يوي دوفل ني بوي فدو غا بسم الله وحك الجسد ولا بوي وقتو وك يرامم يميل نونو والبصاخ بوي تفلي والمخاط ولا مي نياندو يي كين يو كين سونو لتي بسم الله داف داف نك مبيلي سوفي كوكو انت نونو ci bismillah ak sell googu mu sell dafa am mbir yoo xam ni kenn du ko si jëfandikoo nekk noonu wa xaraja muharramun li zaatihi ndax mbir mu am fu la génne na mbir moo xam dafa xaram si jëm mbir mu xaram si jëm moom nee amul ful kenn du fa jëfandikoo bismillah jëfandikoo foofu dafa xaram ke zina nak njaaloo nit ki buy ànd ak ko dul soxnaam du wax bismillah bu ko waxee yokk na bàkkaar loolu muy def dafa xaram bismillah googu mu ko utiliser daa xaram wa sariqa wala buy sàcc kenn yoonalul bismillah daa xaram jëfandikoo di sàcc di wax bismillah wa surbil xamri buy naan sàngara kenn yoonal bismillah wala muy naan donte ndox la waaye moom ko daf ko sàcc mooy moo dugg ci wa sariqa du wax bismillah wa taafif buy méccetu ay waajuram ndax loolu daa xaraam di ko du wax bismillah bala mu wax óof ndax loolu moo dafa xaraam ak lekk ñamu jàmbur ci lu ndigalam ko sàcc la كوكو إتام الإسلام دفع حرام ميوخ بسم الله سيجي دمي نونو الإسلام لب كوكو موي محرم لذاته نخاني جم من بير محرم الإسلام يونو لك بسم الله محرم لعارد أقول لك عنده حرام حرام دي لك تحرام موي لفدخ لغار لن موي لغار mu ni kalwado bi may maxzuub jàpp ci ndox moo xam daf ko sàcc jàpp gi araamul lu araam mooy sàcc gi mu sàcc ndox mi moomu ko nee na bu jàpp du wax bismillah donte yoon loolu ñu wax bismillah bu jàpp mu fi sàcc gi moom fi dox bu lekk àllu jàmbur dox bismillah si lu ndigal déedéet nu wax ga nee na xaraam na waaw kii mooy ñeni sàcc ndoxu jaamur jàpp njàpp mu du wér kooku kon du wax bismillah wamal wudu bi maa'il maxsuub man xaala bi sixati natqa bi karahati tasbih képp nag ku ni ndox moom nga xam ni dafa ko sàcc bu ci jàppee dana wér doonte am na bàkkaar yoreel na ndoxu jaambur nee na kon kon sib nañu mu jëfandikoo bisimillahi bu mu jàpp waaye dafa am ibaax imaa ñu sib ka imaa xaraam ci jëfandikoo ngir jàmm moom loolu moo tax suñu dund lu doy waar la ci wàllu tur yàlla wi boo yéeg ci di dem fa ngay dem yéeg ci oto façon yéen paas dina bu kii laaj paas booy dugg doo bismillah ndax sàcc na doo jëfandikoo tur yàlla wu sell ci di ko mooy loolu mooy mbir mi booy dugg foo war dugg kër jàmbur lamp man doon amoo ci ndigal dox bismillah booy def lañu santul dox bismillah yépp bismillah dafa sell kenn du ko jëfandikoo ci mooy yàlla kooku mooy lu xaraam ci jëmmam ak lu xaraam loo xam ne araam nga day dikk nekk dugg fa kadalika makru li zat yi loo xam lislaam dafa sib ci jëmmam kooku itam bëgguñu ngay wax bismillah boo koy def maa ngi ko misaale ka nazar li farji zawjati aw zawjiha nee na góor jigéen doonte jabar ak jëkkër lañu ku si di xool sa awray moroom tey ko te amoo ci soxla xool googu duñ ko sib comme que duñ ko sib nag lu jëfandikoo bismillah bismillah lu yéeme la ci wàllu usulu diin ci buñ la koy jàngal nan la toll sib nañ loolu lépp luñ sib nee na bëgguñu ngay utiliser bismillahi ci boo koy def kasur bi duxaan aw tatxiin kuy tux ci wax ni ñi ni tux duñ ko sit buy taal almet gi di commencé tux sib nañu mu jëfandikoo tur yàlla sell woowu ñu wax nag ni tux dafa xaraam xaraam na mu wax bismillah ndax tux dafa bare ulama yi ñenn ñi duñu ko araamal na moom définitivement ndax xabis la min al baxul day yak day lor ci amul njariñ day lor alal ci kuy tox day lor wéram ci kuy tox su fekke ni sigaret bo mu taal sigaret bo mu taal xéñul kenn xéñul kenn ba di tuñam xërul bëñam deful ci xolam tilim xaaj bu mu ko jëlee wàññiwul dépassam boppam wàññiwul dépass njabootam loolu la yenn ulama yi ni nañu ko waaye bu defee benn effet mu jeexital ci dundam ci wér wala xër ay tuñam ñuulal ko wala xonqali bëtam wala dugg ci xolam am si lum fi def wala mu xéñal ko bi yeneeni julit neexu leen kooku am ñu wérante ni tox googu mom dafa haram kenn du si jëfandikoo bisimilaay kooku di ko ku man nako ko bàyyi ko sip ni sip nit haram ñu bari jumlo nuñu leen dafa bok ci yo haram kon bisimilah ngi noonu foofu ci tux ñi sib nañu jëfandikoo bisimilah muy tux ñi xaramal nañ ko ma ngi noonu ci kazalika zikrul maxda zikar fekkee ni day zikar nee na zikar tur yàlla la comme que tur yàlla la دونك بلا ذكر دوخ بسم الله مثلا مين بغي جيل تو يالا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله كبر سخلو منان بسم الله با بار سوكاي جيل دا لولو مول تو يالا موي ذكر دا فاي نيم رك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر كوك نون لاي ديف دو فا نيك ديوخ بسم الله سوخ لولو ñaar du fa nek di jang faati soko lolou yep ndax tur yalla lay كان يونو لتا مونان بسم الله سوكوي دف دنجا كون مو ذكر محدا بني بخلاف ذكر غير محدا امن الذكر بو خمني ذكر كسي ذكر لبو انداك اي وارو كون مو القران مثلا جان القران ذكر لا واي دافو ذكر كسي loolu moo tax yoon yoonul sa bala ngay jàng léegi jëkkoon jàng istiaza auzu billahi min shaytaan rajim sooga jàng bismillahi rahmaani rahim sooga commencé jàng sinon comme ni ñu ko waxe woon bu nekkee ci boppu saar wala ci digg alquran bu si nekk wax nañu leen na ngay utiliser diggante istiaza auzu billahi min shaytaan rajim ak bismillahi rahmaani soog yooyu kooku mooy zikar bu xam ne du zikar kese yoonal nañ ci bismillah ci wàllu sunna am nañu wax nag nit ki buy way gis nga way ci lislaam dafa am affaire leen usuli diin ñu jàng wax nañu buy way du jëfandiku bismillah soog way wala du ko def ci biir way wi foofu wax yu bare ngi ci seen biir am ñu ni way yu fekkee way lislaam la amul problème yoonal nañ ci bisimilah nañ ko yoonal ci xam-xam bi ñu jàngale ndax xam-xam la bu dee way yoo xam ne nag dafa xaraam day jëw wala muy xaste yu demee noonu dafa dugg ci lu xaraam kenn du si jëfandikoo bisimilah bisimilah nga noonu lu yiw la ci suñu dund moo tax ñu jàng ko dafa am yitte jox ko valeur jox gëddëm ndax moy tahalli nee jikon jàngale istiaza xamni fokk nga xam lan mo seytaane ba mën génn ci mom non ngoy jàng bismillah ba xam lan mo bismillah bi man dug foofu l'islam lépp tahalli la ak tahalli tahalli dindi lu bon soga a tahalli takay lu bax bismillah ngo inshallah nu yamani fofu be yàlla def ñu toga benn jetaay تي بنين بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان